dafa diine yi foo ñu leen tudd waaye dañ koy tënk yëpp nag ndax tey waxtu moom moo ñu dab waxtu bu ñu dabee nag mooy maanaam nit ñu yàkkamte nañu jëm ci lii waaye mbooleem kilifa diine ñëpp yal na leen yàlla defal jàmm may leen fan bu gudd ak wér-gu-yaram sàmm leen ndax gis nañ ne wax dëgg yàlla solution bi kat ñoom politique yi réglé nañ ko waaye baatin ba ci suuf moom moo tax jàmm am ci réew mi boo gisee ni mi di tëddee ñu ngi ñaan yàlla ñoom yal nañ fi yàlla bàyyi ci wér ñi wax ak ñi waxul ñëpp seen kurus yàlla nangu na ko bés bii nga xam ne mooy kasu rajab Sénégal yal na mujj ci événement yu mel nii képp koo xam ne sa bakkan da ci yal yàlla xale a kawe waaye mbokk yi ñu ngi kilifa diine yi nga xam ne tamit ñu ngi ci bi ci yoonu yonent yàlla Yesu Christa borom xel mu sell mi karem bii ñu karem lépp luñ ci karem yàlla ko yàlla nangu yàlla leen ko yàlla nangul ci barke yonent yàlla Yesu Christa mi nga xam ne moom mooy seen soppe waaye mbokk yi ñuy gërëm ñëpp nag tey dinañ ñëw ci ñetti ñeenti épisode bu njëkk bi ca yeen am na jigéen bu ñuy wax kuuna moom ca boppam nag wax dëgg yàlla événement yi ba mu passé alhamdulilah la wax ak ay mbokkam parce que ndaw si ci boppam tiit gi mu tiitoon ak li mu nekk tamit li nga xam ne nag moom mooy bëgg ak patriote ci président Macky Sall dana ñëw wax ñu waa yéen na seen taxawaay ci événement yi buñ ci jógee Idrissa Seck danañ dem seete ko ci këram nan la ko dundee benn yoon nan la ko dundee ñaari yoon nan la ko dundee ak ki nga xam ne mooy Soxna Fatou j ci interview yi mbokk yi tey la moo doon suñu programme ñu daal di def tampon musical daal di ñëw jublu ji ca yéen la la mooy yéen nekk ci réalisation bi nag Alaaji mooy ingénieur de son nga xam ne mooy Hadj Mansour tey nag ñu am gan boo xam ne moom mooy Pape Fall <laughs> feggoog ki nga xam ne mooy soxna Seyda Mariama Ndiaye benn jëmm ñaari caméra tey dafa nar a neex kon mbokk yi ci kanam tuuti ñu daal di ñëw ak yéen benn dëkk la boo xam ne mu ngi fii ci région bu Cap Vert Dakar dañuy wax waaye nag dafa nekk nag ci buntu boo xam ne booy dugg dakaar nuyu ko booy génn nuyu ko dëkkuwaayam ci boppam sax ngay war a xam ne ne dëkk bu doy la ci baax ak ci yar ak ci aada ak cosaan yéen wax dëgg yàlla félicitation toute la jeunesse de Yénoise yi nga xam ne noonu lañu dawalee gis nañu dal gi ak lépp ki nga xam ne nag mooy Adja moom ci boppam nag am na noo xam ne noonu la ko dundee foofu ca yéen kenn ku nekk ni nga ko dundee moom militant APR de première heure la ñu seeti Adja Kouna na am na loo xam ne daf ko bëgg wax président Macky Sall déglu ko kon ko président Macky m mu ngi seetaan actuellement kenn ci say responsable politique nekk foofu ca euh, euh, yéen mooy ñëw wax li nga xam ne noonu la dundee événement yi nga xam ne macha allah am na nañu ko Sénégal yi xoolee ñu seeti Adja Kouna ak waa yéen. lii la ñuy wax dëgg la dama bëggoon ngeen may ma tuuti ma wax si. Mhm. lii moo la mhm. lii moo la. cere lébu balaa neex mu ànd ak si Mali. dëgg la kon nag soxna na tey moo ñëw pour wax ak askan wi. nee na nag kontaan na si waa yéen ba baax nag. jaajëf. waaw maa ngi leen nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp. nee na soxna Kouna nee na. mu ngeen nuyu ñëpp la sant ñëpp kontaan na nag si seen ab jotaay. depuis depuis problème bi bi mu amee ba tey. Mm-hmm. nelaw ma. Mm-hmm. lekku ma. Mm-hmm. naanu ma. jógu ma. lépp damay toog rek di lox rek di tiit ak palpitation ndax bëgg bi nga xam ne bëgg naa ko jàmm ci réew mi ak président Macky ba fu mu ne nii bu ma dégg teel rek sama xel bi danaan rajax ndeysaan nee na kontaan na si yéen nee na depuis ba mu amee ba léegi déggul benn waa yéen wala déggul benn waa yéen ba sànni xeer gisul gisul daal ngeen def dara lu bon na kontaan na si yéen waaw waaw waaw mhm. waaw lii de vraiment mhm. ñun waa APR bu yéen mhm. topp ci ginnaaw monsieur le maire. waaw te bëgg ko te yàlla tax. Mhm. billaay bu ma déggee rang. Mhm. rang. Mhm. kañ. rung. sama xel bi ne tasar. ndeysaan. waaye léegi yàlla indi na jàmm. président Macky nag def na lu rëy loo xam ne. yombul président def ko. nee boobu ba léegi ba dégg ab pétard ba ndaw sax ba nee tëf sax da yuuxu ba déggee pétard ba ndaw ba ah waaw te ma bi ñu ngi lay xool. nee ba déggee pétale ba ndaw ba ne rang. Mm. nee na moom fit wi dootul dalati. Mm. mais yàlla def na tey ji boobu ba léegi waaye déggul ñu def benn problème mu ngi sant yàlla ba baax te nag mu ngi gën a kontaan si monsieur le président mm. waaw kontaan na si yaw ba baax. waaw parce que li mu def tamit yombul. Mm-hmm. xam nga tamit mag. nekk responsabilité ñëpp wàcc nga dem wàcc. Mhm. loolu li mu wàccee. ba mhm. génn mhm. noonu la génnee sama stress. ni mu waxee. ba génn noonu la stress bi demee daal di koy gunge mu dem wallaay ñëpp ñi xam Adja Koné ñëpp xam nañ ne man. man dama dama dama. ajaa koona bal jooy kala jooy mënu la ndax kala jooy i noppil i noppil amul fen dégg nga waa waa waa ñii kontaan nañ si yow ba baax voilà nee na nee na boobu ba léegi monsieur le président bi mu génnee wax ak askan wi nee na moo ko gën a na boobu ba léegi dafa kontaan kontaan na ba fa kontaan yam lii nag la ñuy wax cëreele bu balaa neex ànd ak simbali ab la ñeex nee na ba baax waaw léegi nag comme que jàmm am na mhm. président Macky buy séddale xaalis bu mu fàtte xale yi yéen mhm. yaru nañu mhm. yaatu nañu mhm. tojuñu mhm. sànniwuñu génnuñu ñu ngi ne yenn ta jàpp seen ñaambur moo tax ñun waa APR yeer ci ginnaaw monsieur le maire ak Abdourahmane Ndiaye ak ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy taxaw pour yéen mën a avancer vraiment man fu mu ne nii wóor na yàlla fan yee passé kudd ci noir bu ne rang sax mu mel ni rek maa rusi ci lay def yooyu yëpp nag moo tax may waas ma Macky daal bu jaara ci jam ñaata ci dem na jaar yee nuyu leen ndax xale yi yaru monsieur le président bala de bala demati aéroport na jaar côté bi yéen. waaw parce que mu tàllal loxo parce que ñoom kontaan nañ si ñoom. waaw maa ngi wax ak askan wi yëpp nag di wax ak askanam ba xale ba du xale yi bal daw bal daw bal daw gaal ak maara gi moo la teer. Ah. gaal gis nga nag traumatisme bi nag mooy jàpp. dëgg la fu mu ne nii boo déggee eh, dawlee nag. dëgg la mooy leen rek sa fit bi day dal waaye Macky wàcce nga yëpp te dalal yëpp. waa kay. dañu mm-hmm. bëgg daal mooy ñun waa yéen. Mm-hmm. ñu gis suñu bopp nag ci li nga xam ne mooy jeunesse bi nekk yéen na mm. président Macky Sall séddale bu baax mm. lépp jaar yoon te ñu bañ a na xale yi ndax ñun lu ñu fexe rek mm. pour APR biir yéen daa dee jëm ca kaw ndax kaay ni dama xale yee ñan la mbaa ja non lii gaal gaal ak maara gi moo la teer. Ah, gaal ak maara gi moo la teer. ah dañoo lakk jën moo tax saxaas. waaw dañoo lakk jën waaw. lii nag mooy ongale bu si lakk jën ndaw sala lëli. waaw waaw lii moo la ongale bu si lakk jën daw sala lëli. waaw sala lëli mooy saxaar si. mooy saxaar sa sama maam daan daan daan ma woyal ci tefes ba. Mhm. way bi këpp gaal kenn du ko way. waaw xam nga loolu bu ñu ko waxee ak wax mhm. bu la. waaw moo taxit wax buy tas réew kenn du ko wax. ko wax wax dëgg yàlla waaye way buy tas réew kenn du ko way. kenn ko wax wayu maam lan la woon Alassane Seck Alassane Ndiaye aw manu laa fecc manu Kouthia papa euh, papam Kouthia mu ngi koy nuyu waaye tamit euh, ak waa kër yëpp nag ñëpp a ngi koy souhaité la famille Faye la famille Samb ñëpp ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér yaram moom xale bi nga xam ne mooy Marie Faye di doomu jëmb Samb yal na ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér yaram en tout cas xale yi Medina la famille Faye ak Samb tous unis ñu ngi koy souhaité happy birthday to you loolu moom mooy euh, li nga xam ne nag moom mooy anniversaire Euh, euh, bonne euh, réussite bon rétablissement à Ngagne Diallo dédicace à Mame Sala saw Ousseynou Diallo Ndeye Fatou Diallo Amadou Diallo Ndeye euh, Daba Sidibé ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal tamit yàlla may leen fan bu gudd ak wér-gu-yaram di leen wax bon euh, bon rétablissement à Ngagne Dia euh, Diallo waa Mauritanie yëpp nag particulièrement yaayu Hajara moom tamit ñu ngi koy nuyu di leen ñaanal kenn dalu jàmm Binta Thiaw njaay la moom la grande commerçante moom tamit nekk ca plage bu Yaraax chéri Pape Faye moom tamit ñu ngi koy nuyu di wax joyeux anniversaire à Cheikh Mamadou Diakhaté chéri Aram bopp depuis KM so kër gàllaay nekk taalibe euh, Baxyada Baxayda Aydara photo maa ngi noonu de la part de Ndeye Fatou Dia moo koy souhaité happy birthday to you à Cheikh Mamadou Diakhaté euh, joyeux anniversaire à Awa Thiam nekk ca Kébémer moom nag wax dëgg yàlla euh, turandoom di maire Awa Mbodj nekk ci Cité Fadia mu ngi noonu moo koy souhaité happy birthday to you moom Awa Thiam di sëy ca Kébémer nag ca te ki nga xam ne mooy turandoom di tata Awa Mbodj di ku baax moom tamit moo koy souhaité turandoom boobu Awa Thiam depuis Kébémer happy birthday to you Fallou Euh, borom Sénégal étanchéité suñu xarit la nit ku yàlla baaxal la ma koy wax ndokkale ci kaso rajo bi yàlla defal ko ci jàmm tamit li mu fa ñaan yëpp yàlla defal ko jàmm ma ngi ci liberté 6 extension foofu ca camp pénal moom nag wax dëgg yàlla nit ku baax la ndax euh, yónnee na fi woon délégation ñu defal ma fii intensité jamono yu yàggee ca cotation ba ñu ngi koy delloo njukkal di ko gërëm tamit di am mbégte bu yaatu euh, ci Mbathio Guèye et sa maman Ndeye euh, Ndeye Ndeye Ndiaye depuis Kër ma nuyu na leen ñu ma Ami Diop conseiller départemental responsable politique nekk ca fi nga xam ne mooy ci Moustapha Diop mbokk yi léegi dañuy dem seeti Idrissa sekk moom ci boppam ci biir këram nan la dundee événement yi nga xam ne moom la xale yi doon dund àllarba bi nga xam ne dañuy yóbbu Sonko mu war a dem wuy ji kii nga xam ne mooy président Idrissa sekk ñu an ko soow moom ci boppam ndax ak mburu waxtaan lañu ci tool yi nga xam ne bi mu commencé dégénérer moom soow nan la ko dundee ñu dem seeti soow ci biir këram allo waaw waaw ah il paraît que waaw dafay dem man daal sa waay li ma lay conseiller mooy il faut garder la sérénité opposition bi man rek maa ko doon yëngal booy kenn mënu leen génne non mburu na sa xel daal booy du ñu génn booy du ñu génn de booy du ñu génn non du ñu génn yow dara xolal jàppal yaa ngi jàpp parce que yonent bi ci ay jamonoom bi ko noonu bëggee sonal am na aaya bu wàccoon waaye damay bañ mu gudd waaw té téyel foofu yaa salaamu yaa salaamu yaa salaamu waaw mooy turu yàlla bi nga xam ne day indi jàmm wara ma envoyé la ko audio mburu bul tiit dara du yëngu waaw maa ngi xool télé ci xam rek ma wax la yaa salaamu bindal yaa salaamu jàmm ji yàlla ji ok xale bu ndaw bëgg a tas réew mi Sonko il se prend pour kii ma jàpp Walfadjri way allo allo mburu laqatul de laqatul de wara nga génn réew mi laqatul de ah cette foule là il faut que gars yi dem waaw maa ngi koy seetaan télé bàyyi rek ma lay nettali couper sa télé waroo stressé mais ces gosses là ils sont déterminés ah. nday penda nday penda si si si jaada bi baax na bu xale yi génn nday penda. bu xale yi génn yaa ngi jàpp ñoom ñëpp nañu jàpp tey tudd yàlla allo mburu mburu bul jàpp télé de bul jàpp benn tele waaw man maa ngi seere nice man maa ngi taxaw ci buntu kër gi man aw ma lu may daxu yow man maay sa défenseur bu ragal dara dégg ma xola mburu dégg ma booy yi eh arrêté dégg waaw mburu waaw waaw maa ngi ci événement yi waaw maa ngi génn maa ngi génn kay dañoo bëgg a tàqale rek waaye yow dara duñu tàqale nday penda alma satala ma jàpp laay laay la la mais sa gos laag lii mu commencé allo allo li am Dakar mbaa moo am Thiès foofu tamit c'est la même chose ah waaw maa ngi nii di ko seetaan télé mais muy commencé wàcc tuuti xale yi dispersé nañu waaw bu kenn génn nag dit aux militants de rester tranquille et garder la sérénité Yankoba Diatara je demande waa garder la waaw ay ay Penda Ndey Penda Ndey Penda am na kurus salaamu ya salaamu ya salaamu yaa salaamu àdduna bëgg a tukki war a Sénégal ay bëgg a dem alors mburu garde la kalm rek garde la calme maa ngi lay wàccel ay saar yoo xam ne ba yonent bi amee jafe-jafe ak ñi nga xam ne ñooy noonam yi saaba yi bàyyi koon bët gànnaar Israël ba ñu ñëwee ba ca Dakar ga dañ fa taxaw làqatu dañ fa taxaw man du ma ànd ak koo xam ne day nekk ci ay tolof tolof gis nga bi ma leen jàppee ak ajjuma ci guddi jàpp samedi dimanche da nga dégg lu yëngu ci réew mi waaw <laughs> tàngoon na waaye xam nga rek mbiru yàlla la <laughs> mbiru yàlla la balaay muy neex day metti démba daal def naa ay saar yu baax waaw def naa ay saar yu baax dara dootul yëngu waaw gis nga démba ajjuma ji samedi dimanche ba tey altine dara yëngugul waaw waaw dara du yëngu yow xolal mburu man soo maa la ko wax dangay am jàmm génn naa wax gars yi commencé génne vaar waaye ay vaar mooy la ñu ku am nga vaar <laughs> wala ku nekk am nga vaar <laughs> man loolu en tant que politicien expert loolu yëngalu ma waaw tey je pense que waaw koy seetaan yow garder la sérénité le calme bul génn gum de boo génnee rek les toogal ba ma jox la ordre <laughs> ordre politique ci magum politique waaye fay ordre présidentiel <laughs> garde la calme mon ami so <laughs> mboro mboro jërëjëf waaw maa ngi jàpp yi xool waaw maa ngi jàpp yi bul quitté eh, RTS Tom Ejeri la teg waaw waaw Tom Ejeri mooy daw RTS nga affaire yi wàcc na gardel la calme rek juróom-ñaari ndabu soow ngay génne ak laax waaw waaw joolaa xamul laax sarax ko ay joolaa <laughs> nga am jàmm léegi <laughs> waaw d'accord comme ci kanam la paix nous revient tey sa leen di waaw altine bés bu baax la bu soobee yàlla man maaraa maa ko wax Idrissa Seck du ma ànd ak kuy am problème jërëjëf soow jërëjëf mburu mburu jërëjëf <laughs> waaw kay dama xool RTS xool yeneen télé yi TFM débat baax na débat yi ñoo gën direct yi seen TV débat baax na waaw de su fi amul dara ah d'accord waaw nii la dëkk day am jàmm waay waaye bëgg ñoo rek indi fi yàqal ma maa ngi soog a dugg dafa guma juróom benn weer sax tem ñu ne maa ko gaafal nday penda waaye neel jàmm ak salaam réew kay tey jàmm rek la. ah alhamdulilah loo togg. ah loo togg. togg naa ceebu jën. ah ceebu jën. waaw. kii mooy ceeb de la paix. macha allah. <laughs> neel gardien yi nii foofu mu af tey jàmm rek ay am. waaw d'accord nijaay. ci altine bi bu soobee yàlla. alhamdulillah alhamdulilah. ok ah, fi war a sax. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yaa latif yàlla suñu borom wàccel jàmm ci réew mi loolu ma dégg fana tuudu tuudu ndey penda tëjal buntu kër gi ak mbaaru xar yi waaw tëjal tëjal affaire yi commencé nañ ah waaw moom laay waxal nii waaw waaw kay waaw waaye demal tëj buntu xar yi waaw waaw waaw sa garde la sécurité waaw kay waaw mburu noo ko dundee affaire yi waaw commencé na waaw mais les xale yi dañuy bàyyi léegi waaw maa ngi ci course gi yow amal jàmm rek waaw dama la waxoon yaa salaam yaa salaam ci jàmm ngay génn ci jàmm ngay wax même buñ la. waaw maa ngi lay maa ngi lay ñaanal kay waaw kay non soo gérer rek maa ngi nii di gérer ci bunt bi laata taxaw sax xale waaw ga la ilaha illallah mburu mburu waaw gardel sérénité du li ay bal nii la rek yonent bi bi ko noonu bëggoon xeex ñi nga xam ne ñooy saaba yi dañoo defarul ay lakk doom yoo xam ne buñ ko musaan sànni ñu ko gënoon jege ñoo ko doon jéngu kon bul tiit dootoo déggati bomb di nga ko dégg waaye ci beneen yoon rek to waaw maa ngi génn léegi def discours yoo tëddal nelaw rek soox mburu waaw te garde la calme du ñu ñëw waaye booy bii nag mu ngi commencé di ko ne di ma yàqal waaye ku jege nguur war a nguur nga ko yàqal ñu naan dafa ay gaaf lii waru ko def na kilifa yi génn wax a kale bi ah waaw man la Mara waaye neel sëñ bi mu def ñaan waay. affaire yaa ngi taxar naase de maa ngi nii di transpiré ñax gi te xam nga yi baaxul ànd ak nit rek mu ne ci ay tolof tolof tam ñu ne yaa ay gaaf waaw nga ci ñaan waaw waaw kay Ndey Penda kaay xanaa yi dañoo jege. déedéet xale yi manifester mbaa kaay kaay di lam toora nga burgede alwaar surtout Omar Fouti wu ñaanal ndey penda ñaanal ndey penda ñaanal ndey penda ñaanal bi ñaanal Cerno Omar Fouti wu ay say maam ndey penda ñaanal ndey penda ndey penda ñaanal première dame joomu la ñaanal rek. day penda ñaanal la. ñaanal première dame joomu ci discours bi nga xam ne Sonko am na ko waaye tamit dina waxtaan ci discours Macky Sall yooyu yëpp nag ump bi ma nga ak tontu ñu seet Idrissa Seck. waaleykum salaam monsieur Seck noo def. ñu ngi sant yàlla. Mhm. léegi. dëgg la. kay na. merci beaucoup kay waaw. Mhm. salaamaaleykum salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi mbokku àdduna ñu ngi leen di nuyu ngeen ñëw si seen émission bi nga xam ne fii tout est permis nga xam ne fii la lépp di leeree tey ñu am gan bu mag. gan boo xam ne wax dëgg neex yàlla xam nañ engagement am ak déw ni muy dévoué ci monsieur président Macky Sall muy kër monsieur Idrissa Seck président conseil économique social et environnemental monsieur Seck ñi nga mbégte di la dalal. waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Sénégal. Mhm. di nuyu waa Sénégal ñëpp bàyyiwuñu kenn. Mhm. ñu sant Ndiaye Sarr Diop. Mm-hmm. ñi sant kan ñi sant Samb ñi sant Kayta Traoré. Mm-hmm. ñi sant Jaxate ak Ja ñi sant ñi nga xam ne ñoo sant Sila ak Top. Mm-hmm. ñi sant Njaay ak Jóob ak Mende ak Préra. waaw ñi ngi am mbégte monsieur Seck tey ñu dalal di waxtaan ci li nga xam ne mooy lan actualité bi nekk ci dëkk bi coowu Ousmane Sonko xale yi génn ak seen mer xale yi génn ci dëkk bi di wane seen seen naqar loolu monsieur Seck nan ban jàngat nga ci am ci loolu noonu. waaw man li ma ko jàngatee mooy dogalu yàlla. bu yàlla dogalee ci réew mu am ay coow ci jamonoy yonante ba amoon na fa mhm. waaye jamono jooju bi coow li amee mhm. ñi nga xam ne ñooy yahudi ak ñi nga xam ne ñoo àndaloon saaba yi mhm. dañoo ànd ak ak dal xool situation bi situation bu mel noon nag bu amee recomposition des faits ci ay milliers d'années yoo xam ne am na li ñu jàng ci alxuraan ak ci ay kisa ñu wax ñu ko rek ñun noonu la ñuy garder suñu sérénité léegi mën nañu xam ba nga nekkee sa kër di seetaan télé wala ci réseaux sociaux nan nga ko dundee nan situation bi nan nga ko doon dundee. sa biir comme sénégalais yi niñ ko dundee dama ko dundee comme sénégalais yi niñ ko dundee. parce que mhm. ñun événement 88 fii la fekk. fu nekk jaar nañ fa ak Ablaye Wade ñun yooyu nekk na yoo xam ne ñun man sama kër dama ko gérer nicement dama ko gérer bu baax aw man mu doon tiit parce que benn xam naa ne sérénité am na ànd ak ak man ak dal ndax sama digganteeg mburu war waru ci nekk dëgg la dëgg la mburu ci situation yi mu nekkoon man soow dama ne naa ko ci jéem a compatible ak moom dimbali ko ci taxawu ko di ko woo téléphone di dal ak moom wóor na yàlla mais euh, sa sortie bi nga def dama gis nga def benn sortie boo xam ne nga génn wax ci mais sa sortie boobu vraiment sénégalais yi rafetewuñ la ko te fulaaluñ ko mais sortie boobu lu tax nga defee ko noonu. lu wax fulaaluñ ko yoo tamit parce que xam nga ne nit ko wax ay waxam am na ay soppeem. li mu ta am solo daal mooy wax naa wax joo xam ne ñi mu intéressé te message bi fu mu war a jëm ndax man dañ ma fi tuumaloon. dañ ma fi tuumalee damaa génne kaamin teg ko ci loxowaat ñëpp gis man leen fekk l'interdiction du soleil du ñu mus a seet li nga xam ne. moom nañ may jiñ te loolu ba tey may wax ak yoo amul. kon bu fekkee ne damay joxe conseil rek laa doon joxe. ñoom nag ñoo xool nuñ ko réseaux sociaux yi ñoo xool nuñ ko jàppee. waaye parce que li askan bi wax rek ñun lool lañ lay laaj. Ah, tamit li indi wax rek laay tontu waaw dëgg waaw mais boo génnee def sa interview askan bi wa digg neex yaa rafetlu la ko dañ la koy daal di indi wax la ko pour nga xam ne li nga waxoon askan bi. rafet da ngay wax askan bi àndul ak man waaye askan bi ànd ak man wax fa dëgg yàlla rafetlu nañ ko tamit soxna si. kon de kon ñi ànd ak yow monsieur monsieur monsieur Seck dafa daal di néew léegi. Ah, loolu moom mbaa jàmm la. sécurité mbaa jàmm la son bi ñuy dégg monsieur Seck mbaa jàmm la. léegi monsieur waaw monsieur mbaa jàmm la. nee xale yaay ñëw. ñooy ñëw daane la ñoo di lancer benn appel jeunes vraiment moom daanaka yoonam nekkul ci coow bi ah, ñuy lancer appel lancer au calme ñu xam ne jeunes yi nañu ànd ak dal rek ñu xam ne lii Sénégal suñu méew suñu réew la bu ñu yàq bu ñu taal monsieur Seck waruñu ko fekk fii xale yi di ñëw ba télé bi fii di gàddu ay xeet di ko fi fekk vraiment. Ah, gis nga àdduna moom monsieur Seck toogal bu baax. ñu daal di continuer sécurité baa ngi fii sécurité vraiment gérer ñu loolu mu doon loo xam ne ñu mën a assurer sécurité monsieur sa Seck ñoo xam ne monsieur monsieur sécurité bi vraiment woolu naa leen ñu dem ci beneen question. Oh. discours président Ousmane sonk bi mu génne joxe exigence am joxe joxe joxe joxe joxe boo wax li mu bëgg daal lan nga ci mën a wax. waaw ndax émission bi direct la war moom nañ ko seetaan parce que émission bi direct la waaw direct la gis naa ah, ko. waaye li ngay wax ñoom ci loolu la ñuy daal di basé wu rek. waaw Sonko moom fi dara lu war tax ñu fekk la fi ah, waaw. waaw ah, vraiment. waaw dañuy lancé au calme jeunes yi calme leen xam ne moom vraiment tamit nag daal yoonam daal nekku ci. waaw mi ngi nii di wax di wax li nga xam ne lu rafet la léegi discours monsieur Ousmane Sonko li mu wax. joxe exigence am nee na troisième mandat moom du fi amee ak yooyu yëpp xam naa ni seetaan nga ko n'est-ce pas. xam naa ñu bëri xamuñu sax sama digganteeg Sonko. xam nga pas cadre politique. Mhm. ay xale yi nga xam ne ñu ngi leen seen ñuy ñëw. Mhm. dañoo xam ne ne man sama maam Sonko la sant si sama côté yaay. Mhm. waaw ay mbokk nañu ci Sonko boo gis benn benn benn benn deret la. si sama côté maam daal. am naa maam mais monsieur Seck est-ce que lii ngay wax ni mënoo ko woon a wax si sa discours. parce que mënoon nga ni Sonko sama mbokk la moo gën nga naan Sonko na génn wax. ba pare man ma doog a def intervention wax damay wax damay bëgg wax ne wax dëgg yàlla réew mi. koo gis rek la. koo gis mbokk la te lii nga xam ne moom la président Macky la wax barki démb. génn wax ak askan wi loolu mooy wane ne président il est ba pare wax na loo xam ne réew mi ñëpp ku ne nangu ne jàmm am na ci réew mi. léegi discours u monsieur Macky yow président Macky Sall loolu nga ci am njàngat. waa vérifié ñu sécurité bi ndax moom mu mën a def euh, kii bi interview bu normal. interview bi du mën a neex ni ñu ko bëggee du mën a neex monsieur Seck doo toog bu baax parce que bi vraiment mën na bañ a dëgër. ah waaw. ah nee na dañuy romb dañuy romb dañuy romb waaw waaw nga toog bu baax parce que bras xam nga fauteuil rek mën na bañ a dëgg te bëgguñu dara di la dal ci suñu daal di suñu plateau léegi discours président Macky Sall bi génn daal di woote jàmm loolu nan nga ko mën a gisee comme que moom moom moo ko def xaar ne leen ci yéen ngeen moom moo génn def ko. waaw jàmm ji moom la ñëpp di ñaan moom mooy la la jeunesse sénégalaise que vraiment jàmm la ñëpp di ñaan. Hmm. ndax lii je pense que ne. 88 euh, euh, moo gënoon metti tey romb nañ ko. Hmm. te sama digganteeg soow wax dëgg mënu wax dëgg yàlla dama ñëw pour protéger état. doxalee hmm. doxalu état ndax mënoo nekk ci état ba pare di ko ŋàññ. je pense que compatible boobu may jéem a def sama digganteeg président Macky Sall mooy ànd gu rafet entre réew mi ak APR. léegi li coow li am ban jàngat bu positif nga ci jëlee ak nan ban taxawaay bu bees yéen moom ngeen war a am envers président Macky Sall jàppale ko mu doxalee li nga xam ne loolu la jeunes yi bëgg. waaw loolu ci gàttal soxna si comme que sécurité bi waa ji dafa wax ne xale yi dañuy romb kon interview bi dañ ko fi daal di dañ ko fi da ngay gis nga gis nga xale yi moom dañuy daal di ñëw mais lancer leen appel nga wax leen lu ñu mën a ko defee ñu daal di romb daal dem sa yoon yow nga mën a dem sa yoon jàmm am waaw maa ngi wax jeunesse bi ñu en travers sa émission bi mhm. wax bëgg te ñun tamit jàmm rek na nañuy ñaan yal nañu yàlla indil jàmm ci réew mi parce que nekk na loo xam ne lu baax la ci réew mi na cooli wàññeeku ay est-ce que doo xool sécurité <laughs> monsieur Seck defal nii rek te ñu daal di génn ñu daal di dem parce que vraiment li nekkatoo en sécurité te man maa la fi invité te bëgguma dara dal la monsieur Seck waaw ñu daal di dem tàggatoo si question bu mujj bi rek lancer leen affaire ñoom dañ la dégg wax leen rek ñu dañ la dégg parce que ay xale lañu yow sa papa monsieur Seck ma protéger rek ñu dem monsieur Seck ñu dem sécurité vraiment dara tul sama xel dara tul sama xel ñu daal di dem ñu génn lance doo wax ak jeunes yi s'il te plaît dañ la ko. Eh, aywa bul ma jaaral jaaral na la jaaral jaaral na eh, la jaaral jaaral bu ñu seetloo ne àllarba bi passé alxemes àjjuma Sénégal ni ngi ci rythme boo xam ne dafa xawoon yëngu waaye weekend bi yàlla wàcc fi dal altine yàlla tënk lépp kon boo xoolee diggante ba alxames àjjuma samedi dimanche ba altine mooy juróom benn fan yi Sénégal dafa nekkoon ci lu tënku pour libérer nag Sénégalais yi ci li ñu toog nii ku nekk mën a doxe sa soxla ñu delluwaat bay liggéey utante jàmmante ñi doon laajte président Macky Sall ci lan la nekkoon bi événement yi amee lii ngeen seetaan ni amul dara lu ci changé nii la ko dundee nii laa ko dundee ak moom ca biir pale ba moo tax ñoo dina ko wax gars yi ñu seeti président Macky Sall ba mu nekkee ci biir mbir yi nan la demee. la la la la la la la la la dama ne dama ne fatigué président président waaw monsieur le ministre ah bon oui. j'étais un peu en sommeil là allo waaw Antoine nga ne on oh, xaruñ ah bon ah non loolu garaawul xam naa dañuy génn nii rek gaa yi ñoom kenn du leen topp bon non il faut pas je pense que day génn nii rek yow gars yàgg nañu woote mais dara du am ok waaw non affaire bu ndaw la bàyyi noonu rek je pense que ne c'est pas tellement grave comme mu ngi génn. ngi dem waaw ah, ok comme baax na non rien à on va maîtriser ça ok garaawul d' accord yow liggéey rek man maa ngi nalaw je un peu en ce qui ok ok merci. Eh bien monsieur waaw mais qu'est-ce que ça passe c'est Antoine Diome Antoine ah il me laisse même pas allo waaw ah bon daf ko dañoo dévier waaw mais garder la sérénité rek loolu léegi mu jeex xale yi dañuy génn rek xale yi Sénégal am nañ leen dañuy génn rek non je pense que c'est moins dangereux ok waay Antoine non non yi affaire ndaw la rek parce que ah bon waaw mais kon yóbbu lañ ko Colobane ngeen bañ a jaar côté bi su man xam naa ci kanam damay génn jaar noonu waaw kon dévié leen ko xool leen rek ok baax na laissez le temps de dormir ah bien présent affaire mu ngi bëgg a de. Ah. mu ngi bëgg a métti de. Ah oui parce que gars yi commencé nañ marché ñu ngi commencé dugg. Ah. instant bi commencé nañ taal huit euh, Auchan oui. lekk yi nekk si Auchan bi yëpp jeex na instant bi. qu'est-ce que wax nga na bon oui. dañu commencé la. oui oui commencé nañ génn de instant bi moom mu ngi commencé. composement le ministre la. ah bon je pense que xale yi bàyyi waaye ne quittez pas. waaw. ah bon télé yi commencé nañ ko ban télé Sen TV jàppal ma Sen TV la on se voit moi je suis là je suis là. Sen TV direct. ah bon waaye c'est ça mhm. ah Walfadjri waaw. Hmm. attends je suis je regarde je vois les choses là fii Sénégal la. Mhm. Ah, d'accord gars yi kañ waaw ñun ñëpp fii lañ fii lañ. fii lañ ànd ah. oui instant bi Sénégal la Dakar la coupé nañ coupé nañ seen TV ak Walf ah nañ ko waaw. waaw nañ teg. kon kon garaawul comme que clip nañ teg garaawul. TFM bu ñu tegee clip c' est que affaire bi dafa tuuti. ok monsieur kon loolu foofu. ok ok baax monsieur le président. oui affaire yi mu ngi commencé bëgg a ëppi loxo de. ah bon oui gars yi ñu ngi commencé di foncer di ñëw de. ah bon oui. ça devient sérieux là. oui oui oui. oui. monsieur le président du noonu. ah non d' accord. oui. te composement le numéro du ministère la. alors monsieur le ministre. ah bon dégénère la. oui ne quittez pas. TFM crib la teg comme affaire bi garaawul. oui. allo. Ah, d' accord ah, d' accord oui parce que tamit xam nga événement yu mel nii waruñu ko wane. xam nga su ko defee gars yi na dëkk baa ngi tàkk te dara yëngul ay 4 5 garçons comme ça la ñuy indi wala c' est ça ah bon Babacar Diagne oui non grave loolu amul problème mais affaire bi grawul ah bon. oui commencé na hmm. grave rek oui sur les 15 Auchan booy lekk nañ d'ici. Ah bon je... Hum. Ouais, mais... D'accord. Ah bon Oui, oui. Oh, je suis désolé là. Je suis désolé. C'est des jeunes, je suis désolé. mais bi gars yi gars yi ay benn koñ la war a partout. oui partout. Hmm? oui Sénégal yëpp a ngi tàkk. Sénégal yëpp. oui man kay li ma gis kay mooy ñu génn. ah bon waaw je suis le commandant là. Hmm? nelaw jeex na kay. ah bon. ana booy après gën nañu pour sos dem y a personne. waaw mais ça veut dire que mooy comme affaire bi c'est pas important parce que. waaw mais dara garaawul de parce que TFM bu tegee clip ça veut dire que. waaw mais est-ce que du benn koñ rek hmm. ah bon ñu génn xool. waaw waaw il faut ñu génn xool ah bon non juste je suis accompagné avec le commandant. nee na nga am na fan nga ubbi foofu passerelle bi ñu xool quoi parce que il paraît que ñu ngi côté fële la. ok waaw taxaw ni taxaw ni def ni booy parce que booy da ngay war a. en fait la kay tax fii ñu xool.

fii da ngay dégg ñu wax Sonko Sonko bi dafa jolli war a. waay waay eh occupé de occupé. booy ñoom Sonko Sonko la ñuy wax war a libéré. Sonko Sonko rek la ñuy wax nañ la tamit de. non ah bon. waaw daa mel ni dañ la mere. bravo c'est cher c'est cher. naa naanoo café bi de. ah oh, war d'accord. may ma ceeb. ceeb waaw. waxal cuisine bi ñu di ceeb. président nga añ de da añ ba pare. waaw d'accord mais. Uh-huh. indi ma mburu mburu waaw oh. ban mburu moom mburu waaw indi ma soow waaw allo waaw non mënu ma toog mënu ma taxaw oui ah bon monsieur le président soow a ngi waaw waaw mais c'est bien Idy génnal waaw génnal génnal waaw je pense que génnal nga wax oui d'accord il faut demander le général pour ñu ñu jalonner Idriss Seck day def conférence de presse di alarme de de jalonner quoi pour lui d'accord waaw maa ngi koy suivre ah fan lay waxee yaa ngi wax nii Idy ok Idriss Seck mooy wax quoi peut-être mun naa alléger problème bi la léegi ma ma oote wala ma bàyyi. waaw taxaw bu ngeen génn loo. kaay kaay nga jàppal ma fii internet bi. dama ma surtout TFM bi. UGFM UGFM ñoom dañuy génn lu stable quoi du mu def loo xam. voilà mu ngi noonu. Idi nga wax waaw. mën na ci dara je pense moom Idi. Hmm? ma ne mën na ci dara je pense moom. waaw ah, mën na ci dara mais yow tamit baa génnee wax askan wi. Hmm. dina ci baax. très bien c'est bien fait c'est bien dit. wax nga dëgg man sama yoon nekku si parce que xam nga ànd li la jëriñ ko mais ñeneen ñi baal rek seetaan naa télé yi gisuma kenn wax moom rek moo génn wax te c'est ça waa moom moo wax koy jàppal c'est bien léegi doo a wax ak askan wi hmm? man loolu daal laa gën a gis quoi nga a wax ak askan wi parce que ñii mer nañ mer nañ trop monsieur le président. parce que teel a génn da nga may. pour ah. waaw. tu penses pas ñu ut ay comme que ñoom Auchan yi nañu attaqué di ko lekk ut benn hélicoptère buy sànni ay ceebu bonbon yooyu. daw ko te bu la fekkee ko. parce que askan xiif nañ de xiif nañ trop parce que ñu ngi jël lekk yi di ko yóbbu et puis waaw. mais mënu ma jox ay ah, ay xale yu ndaw. waaw gis naa ko gis naa ko. monsieur le président voilà voilà. non non non. utal ma ndox. ndox ndox maa ngi nii monsieur le président. ndox ah, ko waaw. lii naa la ndox ak soow ak café. waaw ah, ndox ko. xam nga. yëkkatil yëkkatil fii nii côté côté bu la nii côté bi. Sonko may ma jàmm sëf na dis yow Sonko may ma jàmm. yëkkati fañ fañ fañ fa wàccaca fañ fañ fañ fañ ca wàccaca. instant bi ay fañ fañ fay xewatul de. d'accord ah xewatul de. gars yi gëmuñu ay fañ fañ fay instant yi de. Ah, d'accord non sëf dañ ko sëf rek pour coow wàññeeku. boobu dafa dëgër bopp de gis nga. bu teg ko sa problème la. am na mbooloo de. waaw macha allah. al ma gënnu gënnu. demal ci dialogue président gën amul fii de. non cuisine nga laaj ci gënnu rek affaire je ferai tout que pour euh, dara du am lu leen métti on va gérer ça incha allah. commandant. kay kay kay kay il paraît que les gosses sont très proches là. kii di toog dana pareegul si gën bi de. dégg nga voilà yaa ngi dégg yaa ngi dégg. ok maa leen dégg. mu ngi jege si la mais il faut bu ngeen bañ a egg Sorano quand même. gis nga tu am. yu gën a foncé rek. pare lañ jëm presque. ah yaa ngi dégg. non mais gis nga gars yi ñu ngi nee dañu ñëw. Ah. nga dañu bëri dañu dañu bëri. de loin tu les vois ñu ñëw comme des fournis là. dañu jógee ba Kër Massar di dox di ñëw nga xam ne ñooñu jaral na leen voilà yaa ngi dégg ça ça devient grave que dama war a génn wax ak mooy yoon nga génn wax ak wala booy génn yow nga dem yow kese man ma xaar. non déet déet da nga génn ñu àndandoo. Ah. mais comme yow yaay président yaay jiitu si kanam. gis ah oui c'est vrai tu vois. qu'est-ce que tu penses man dem def déclaration. mooy yoon mooy yoon il faut nga wax ak ñoom askan li ma gis ni moom sooy man depuis ma tëddee ba léegi yow. ah oui. fa nga wax successive même yore bi la sol tu sors pas jeexuma. yaa ngi jeex tak instant bi moom. mais xoolal xool leen xool leen xool leen xool leen xool leen xool leen xool leen tu vois. tu vois. ay xale yu sont en train de basculer là tu vois. bañu dara. attention booy motul fii nañ dem si de. ah génn rek wax ak ñoom garaawul. non non ma génn fii parce que je suis pas. non man sa ginnaaw maa sa ginnaaw wala man ma xaar la nga dem. d'accord mhm. mais ma gis nii vraiment. ñu ngi daw di ñëw de. ñu ngi daw di ñëw de. ñu ngi ñëw de. mais booy fa la jëlee bayre bi. kii fa la jëlee bayre booy booy instant dañ mer. ñii sol ay bayre ñii yor ay. bayra bu kilo wala bayra kilo gaynde day na waar de monsieur le président tout ça tu vois Sénégal ñëpp a jóg de mais mais attention ci seen kaw la jëm ñu ngi ñëw de ñu ngi ñëw de mais kaay rek nga wax ak ñoom monsieur le